Ousmane Sarr. waaw tey ñu ngi doon fii ci Mbacke waa bi carte bi nga xam ne mooy benn bopp yaakaar waaye nag ñu jëm ci ñetti anam benn anam bi jiitu mooy ñaawlu li nga xam ne am na assemblée nationale te ñu def ko jigéen ma gëm na nag yoon dana jël ay matukaay kay ay matukaay ndax bi ko fi Bougane Sali amee. yaakaar naa xaaruñu woon ay kiraay mbalaa nag nag kon tey jii bu demee ba jàpp mbir ci loxo amee loo xam ne adduna bépp ñu koy seetaan jàpp naa ne ñooñu yoon dana ko tege joxe boo xam ne ah, teg leen ci yoon ba xam ne ñoom ci seen jëmmi boppam boo ëllëgatee kenn du ko ñemee def waaye bu leen bàyyee ñu jàll yaakaar naa ne kër yi ak mbedd bi du tee violence boobu jëm ci jigéen ñi day continuer kon ñu ngi koy ñaawlu te xam ne yoon dana jël ay matukaayam foofu. ñu lalli seen mbaalaay mbalaanu kiiraay teg leen ci yoon ba boo ëllëgee kenn du ko ñeme def jigéen beneen bi ci desit ñu jëmale ko ci li nga xam ne mooy am ci réew mi bu jëm ci wàllu sëriñ ak politique te ñu bokk ci sëriñ si nga xam ne dañuy def politique may wax fii mu leer sëriñ Moustapha si moom dafa am kàddu yu yëkkati woon jëmale ko ci ab yonent ku yëkkati kàddu nag jëmale ko ci ab yonent yaakaar naa bu yëkkatee ay kàddu jëmale ko ci yow ngay def politique waxuñu sa casquette sëriñ mais casquette politique la ñu kon maa ngi leeral ne ñun dañuy def politique di jàppale président Macky Sall képp ku yëkkati jëmale ko ci président mi nga xam ne moom lañ àndal boo dee ab sëriñ génn jàkkaarloo ak yow tontu loolu nag moom lañ jël engagement ci ñàkk njëkk ci loolu la nekk. nan xam ne ab sëriñ bu demee bay def politique son casquette politique kon di wax ci politique. kon nit ñi am na droit tontu la ci politique kon loolu soxla si di wax dafa nettali rek waaye waxut ay wax yoo xam ne wax yu boppam kon maa ngi ñaan réew mi ñu tegaat pour mbir mi ci yoon xam ne ñun sëriñ siy def politique doon ay citoyen rek li ñuy wax it ñun ñoo engagé préféré def politique kon lool it maa ngi wax ne képp ku yëkkati kàddu jëmale ko ci président Macky Sall boo dee ab sëriñ nga danañ yëkkati suñu kàddu bi rek tontu la ñuy def nag suñ gëm-gëm la suñ engagement leneen li ci des it ma di ko wax jëmale ko ci ñi ma àndal muy ñoom nan bàyyi xel seen sëriñ si àndal nan jàppale seen sëriñ si àndal parce que yow bu fekkee ne dangaa jël ay engagement ànd ak ñoom doonub sëriñ te ku yëkkati kàddu doonub sëriñ nga wax ak ñoom joxañ leen ñoom it waru ñuy organiser lenn lu dem ci sëriñ wala ñu dem ci ay réew yoo xam ne ay jullit lan ci sëriñ soosu dugal ñu ci seen loxo loolu it lu koy indi nag dama jàpp ne commerçant mooy tontu commerçant baykat mooy tontu baykat journaliste mën naa wax ak moroom journaliste am moo tax ab sëriñ ab sëriñ ñi koy tontu ci fii ku fi joxoñ président Macky Sall danaa la joxoñ ñoo xam ne xëy na ci woote yi woowuñu leen woon ci ñooñu man bari na ci ñoo xam ne jot naa leen ku mel ne àll si la ak ñeneen ñeneen ñoo xam ne nii tamit ay responsable waaye ku mel ne saa Sadaga tey dafay seesi feneen ci Koungheul waaye li am solo mooy message boobu jàll ci gëm naa ni carte yooyu danañ ko jaay facilement parce que problème bi du problème carte jaay carte ay soixante mille Touba jaay carte quatre vingt nangam ci département bi loolu yaakaar naa ne ah, lu tuuti la pour benn ah, affaire kon nag gëm naa ne du problème bu carte yi di loolu problème bi kay mooy naw ñi nan la ñuy def pour jàppale leen naw ni nan lañ leen di bàyyee xel parce que ñooy ñi ëpp ñi wàcc ci terrain bi ñoo jigéen kon yaakaar naa ne man man sama xalaat ak sama problème du carte mais problème bi foofu la jëm xam nga man damay faral di wax ne ñun waa tubaay it war nañoo xool suñuy toogaay man seese naa fi nga xam ne mooy Thiès ànd ak ñun Abdoulaye Diop wax ji tàngoon na waaye ñëpp wax nañ seen soxla ba jógee fa ca benn attaque amu fa benn nit ñuy jotee amu fa kon ñun bu ñu waxee jëm Touba ñu war nañoo xoolaat suñu toogaay ba yu mel nii ñu war nañ koy moytandiku. mu faral di bañ am parce que Touba méngoowut wutal loolu jëg dim yi dëkk bi méngoowut ak loolu kon loolu it war na noo defaraat suñu toogaay ndax cees ñëpp xam ne garaaw na ci politique waaye Thiès bu mënee dajaloo wax ci seen soxla ba jege ci yooyu amul kon ñun war nañoo toog parce que noonu bi ma ko bi ma yëgee ni ñëw gi rek def naa benn audio lancé ko ci mboolem département bi wan ne bu di ñëw nan ko def ci ay teggin nan nan parce que xamoon naa mooy nan ko doxal ci ay teggin ba nga xam ne liñ bëgg a wax danañ ko wax ñi war yóbbu yóbbu ko te benn problème nga xam ne ñoo nekk Touba ak xam ne Alioune Ndiaye ñoo ñu def ko en tant que commission bi yónni ko ci département jàpp naa ne rôle am mooy ñëw fexe ba réguler département bi ñun yónni ñëpp seen i dañoo dem def la ñu war a def kala ko ba ñu yónnee nga xam ne def ko la ko war a def mais Alioune Ndiaye nag ñu ko tànn indi ko fii que indi ñu fii pour neutre ñoo ñëw di farfar le deux Touba bu ñu amee problème électoral à quatre-vingt-dix pour cent Aliou Ndiaye moo ko parce que cinquante pour cent électoral yi Aliou Ndiaye moo moo leen transféré yóbbu leen Linguère loolu ñun waa Touba gépp xam nañ ko ñu toog ne Thiel léegi nag bi ñu ñëwee ci ndaje responsable yi fi nekk kilifa ay ministre conseil chef la kay dépendant ay ay ay directrice ay structures yi fi nekk ñi ko jiite li gën a garaaw rek mooy subaab ñëpp xam nañu ay sonn amul benn coordinateur sonn bi ngeen gis bi nga ko waxee woo nañ maa kii diñ ma ko yëgalee ñi ma mën a woolaa woo yow en tant que ñun ci département nga war a réguler département bi coordinateur zone yi nekk fa coordinateur structure zone yi nekk fa nga war a jël seen téléphone woo leen wala nga wut woo nga ne du leen woo coordinateur zone yëpp dañoo boycotté kenn gaay benn carte li may wax fii nag SONES républicain bi nekk ci commune bu Touba laa xam commune bu Touba la conseil amul benn carte boo xam ne benn ndaw a ko wax na ko li ñu xam ne problème yi nga xam ne ndaw yi am nañ ko dañu jëkk wax ci ñoom mais li xam ne aari def na ko biir ndaje ma di tànn ay nit boppam ay da nii yàqal président Macky Sall fii ndaje mi ëpp parce que am xeex a am Aly Ngouille Ndiaye nag bu ëllëgee bu président bi yónnee fii ci département bi nga fi yónni kenn yónni ko noonu Cheikh Abdou Bally am nañ ko bañ ko yónni dañ ko yónni feneen foo xam ne amul ko benn intérêt Matar Diop buñ ko yónni dañ ko yónni bu amul intérêt garabam yi dañ ko yónni mais Aly Ngouille Ndiaye fii Touba dafay wut ay militant dafay wut ay nitam dafay wut par par loo loolu nag moo yàq ndaje bi fii Touba nag li fi Aly Ngouille Ndiaye def amul benn responsable Touba ay soxna fi am soxna comme ay maire l'ensemble de onze zones douze zones yi ñëpp xam ngeen ko di nga dee gis zone jannatu man maay am action coordinateur moom Moustapha Seck zone neuf di nga dee gis zone biir Moustapha Seck maaw dinañ dégg Basiir ñoom soonu xayma dinañ dégg sëñ Abo ñoom soonu kër ñoom parce que ñoom ñi mais nit ñi ko fay gis amul benn respect ci nit ñi ñi moo ko yoroon dem ñoom ñoo xam ne nit wax aju ko woon parce que ndaw ñu jëlee ñu carte jigéen ñi jëlee ñu carte responsable bi nekk biir tubaab jëlee ñu carte ay carte am ñu transféré dafa ñu